asalaamaaleykum mbokk internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen jaar comme nag ni ñu koy baaxee rek di amalee saa su ne xam ngeen ne Dakar Buzz moom fépp fu ndaanaa ni nekk rek dañ leen koy dañ leen fay daal di fekk indi leen tegal leen fii nga xamante ni moo di Dakar Buzz tey nag macha allah ñu ñëw seet si bi nga xamante ni mën nañu wax ne ndaanaan kullu fadilin la ndax xale la waaye ñëw na daal di imposer boppam ba bokk ci réew mi fu ñu tuddee gars yi tudd ko mën lool nag li muy def rawatina yërmande bi nga xam ne moom la am ci doomu aadama yi kooku mooy kan kooku mooy Dof Ndeye ah, moom la ñu dalal tey fas yéene sekk ak moom waxtaan Dof maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu te yow tam ak si waa équipe di leen wax kontaan nañ si ni ngeen ñëwee seet si ma dal ak jàmm kontaan naa bu baax. d' accord Aïcha mi ngi noonu comme ni ma leen ko waxee rek moom lañu fa fas sekkal tey euh, waxtaan bu am solo waxtaan bi nag li ko tënk yëpp euh, bokk na ci li nga xamante ni moo jëm euh, ci carrière ci li nga xamante ni moom lay yëngu dof émission bi nag ambiance lañ ko tuddee xàppi fair play waxtaan xam nga dama santi da nga tëju il faut nga ubbeeku ñu mën a waxtaan xam nga laal affaire xale tuuti baaxoon nañu ñun saa bu ñu dalalee ndaanaan li ñuy bëgg a njëkk a xam ci moom fan la juddoo fan la yaroo ak njàng mi fan la toll. waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu waale suma Serigne maam Thierno borom daaru tey la jouru màggal daaru bi di nuyu baay daaru yi di leen wax maa ngi tudd Alassane sant Diallo voilà maa ngi juddoo xaar yàlla ci biir Grand Yoff bi waaw du doon mu Awa Gaye ak Tidiane ñu jur ma fuñ ma war a juree voilà ma juddu comme ñëpp bés jot yàlla def ma doon woykat àdduna xam ma. àdduna xam ma d'accord euh, ban classe nga bàyyee. waaw booy xool xaw naa def ay six ans ci école xaw ma. <laughs> yàggoo fa yàqoo fa. non yàggoo ma fa. <laughs> xeexoo fa xuloo fa dégg naa neexoo woon xel ba pare booy ku dof-dof lu ci classe bi nga jàpp ko tànc ko defal ko bagaas nangu ay mburoom. ñu dàq la. ekool <laughs> moom suma papa dugal na ma école dugal ma daara voilà yóbbu na ma menuisier yóbbu na ma mécanicien def ak soudeur voilà xam naa ni nag loolu la bëggoon ma doon yàlla def ma doon waykat. Mhm. mënuma dara si école mënuma dara si menuisier mënuma dara si soudeur ak mécanicien. si soudeur bi daara ja daara ja ñaata temps fa def. daara comme bu déggee ma naan daara comme Oustaz Seydi moo ñu jàngal alxuraan ak gar kii Oustaz fay bi nekk ci juma xar yàlla bi fa lañ jàngee quoi ba mën a julli mën a woor mën a xam li yàlla digle mën a sangu farata wala sangu set. Mhm. waaw fa lañ mënee bu ñu yeegul tam si yaasin xaaju kaamil sax waa xaw nañu mën tuuti dara daal ci alxuraan bi kon dugal nañu fi ñu war a dugal quoi mm-hmm. mm-hmm. waa yàggoo fa voilà yàgguñu si yooyu yëpp <laughs> yàgguñu si yooyu yëpp Malick kii daa mel ni sorewul ak Baye Cafta de léegi yàggul ecole yàggul yàggul ci alxuraan bi léegi ñu dem ci menuisier bi euh, nga jógee foofu ñu dugal menuisier métallique lañ la dugal wala menuisier bois def naa menuisier métallique mooy soudeur def naa menuisier bois. léegi menuisier bois bi lu la fa bois bi dara. liggéeyoo ma fa tendre xam naa moo fa jëlee grand bu dëkk xaar yàlla <laughs> maa ngi koy nuyu Ibu Cokolaas moom tamit mës na ma tendre par quatre daal ma daw fa daal. <laughs> nga bàyyi. ma ne kii daal du liggéey daal fa bàyyi. lu ngeen jotee ba mu tànn la farkaat. comme si que am naa rek heure liggéey da ngay war a liggéey si midi bàyyi ba ay 11h wala ay 10h nga ñëw fekk 8h nga war a xëy si. wala mm-hmm. affaire yooyu yooyu genre yooyu la. <laughs> mais moom doonoon na grand boo xamante ne si atelier bi soo tardee liggéey rek moom da lay tàndal parkaat. <laughs> nga daw amoon grand yu fay nekk. d'accord si la la doon dóoree nag si bi lay jël tàpp ko sa taat sa yaram xam loolu jàng métier ñu lay door. jaru ko Malick muy ñaar <laughs> kii sorewul ak Baye Cafta ak Jean Michel menuisier bois bi non menuisier menuisier bi. menuisier métallique bi tam sama kër turandoo sóoru sikarkat benn booy bu dëkk parcelle day sikar sa papam mm, moo dëkk xaar yàlla jàkkaarloog sama kër turandoo Alsane Fall voilà foofu tam yóbbu nañ ma fa suude. mais comme noonu tamit tey boo ma joxoon fer tam mënuma ko defar fourne sax voilà mu doon yoo xamante ni yëpp sa pam ak yaay dugal nañ fa doom mhm. am xam-xam jaar naa fa mais gis nga nekkul si yooyu lañ ma xamee. yàlla mooy def ci leneen lañ ma xamee muy woy. d'accord jotoo def maçon. non non mais suñu waa kër ay karoloor lañ. ay karoloor gont tamit ànd ak ñoom di gont. non musuma faral ay. dem liggéeyi nii. kon daal métier ñaar yooyu nga ci def. waaw. d' accord euh, mi ngi noonu mbokk internet Dakar Buzz comme ni ma leen ko waxee émission bi nag euh, baaxoon nañu saa su ne bu ñu dalalee nit ki rek bëgg a xam euh, ci lan lañuy ci lan lay yëngu nga jóge def ci métier yooyu yëpp yàlla suñu borom def benn jàllu ci nga toog xalaat way bi lan moo la xiir ci way bi danga am mbokk buy way da nga am sœur wala frère bu nga xamante ne mu ngi ci musique bi lan moo tax nga jékki-jékki rek xalaat na yow war nga rab. non dama seetaan télé rek gis rappeurs yi. dégg micro dama doon seetaan télé gis ak ñu teg ñaari rappeurs ma gis ñaari rappeurs yi di rap ma déglu lu ñuy rap ma toog ay nit na leen ñii de li ñuy woy de man xam naa ne bu ma raboon de gaan semaine gars yi du ñu waxati booy yi. Mm-hmm. gaa yi na ma waaye yow da ngaa mën rap moo yow da dof booy yi ñoo koy tàngal ñii ñoo dàq rap. ma génn war a suivre rap bi nekkaat ci leneen nekkaat ci leneen ba gisaat clip bu booy yooyu moo tax mais amoo benn mbokk bu nga xamante ni mi ngi ci bi nga ciy dugg est-ce que est-ce que yaa ngi doon xalaat fi nga yegg si nii tey ne euh, rab bi mën na la may loolu. yaakaaroon naa ne sax suma première texte yooyu yaakaaruma woon ni su ma ko génnee dinaa fi def un mois comme lu mel ni laay fu bandi comme lu mel ni papa gërëm naa la. Mhm. yaakaar naa ni ñaari son yooyu ba muy doog génn wala ba ma koy def maak Assane Sall ñuy ànd may def ci son boobu. ñu dem daaru muxti magal jot comme nii ñu dem daaru dafa guñ fa six jours sax ñu wooñu ñu télé ñu woo ñu invité ñu rajo yaakaar naa woon ni son bi suma album boobu un mois waru ko woon def fi Sénégal te nekkul woon international wala toju jiwuma Paris wala Europe mm-hmm. parce que dama fa wax loo lu nit mësta wax si banditisme ba pare yemuñu ci loolu ma cité ndaanaanu band yi mag yi tudd seen tur ku ci nekk mu doon risk xam nga la mm-hmm. diw moo def lii diw moo rey kii diw bi ñu ko reyee fee diw diw diw tudd ñoom ñëpp seen tur te ñooñu ñëpp sooy xool tey ñenn ñi ñu ngi Europe ñenn ñi bàyyi nañu ñenn ñi voilà ñu ngi ci kaso bi ba tey mm-hmm. mu doon risque boo xamante ni mësul am senegal ku ñeme risque loolu parce que euh, live bandi soo koy dégg bandi yi ma si yedd ñu may tudd seen tër du ay bandi yu ndaw mm-hmm. dafuñu daawuñu def lu ndaw man ñooñu laa cité woy leen war nga xool si nday ak bàyyi war nga bàyyi war nga am jabar ak doom bandi war nga ko bàyyi sonal nga sa yaay gàdd ñaari boolo añ 100 mètres camp bandi lu mu la may di nga ko fay police kaso mbala dee di nga ko ko fay comme ku déggul waxu ndey déggoo waxu baay soo déggul waxu maam di nga dégg waxu commissaire. Mhm. xam nga comme ku si toroxal sa ndey ba dee war a dem safara bul dem ci sëriñ ba mu defal la gàllaaj ak saafara mu doon yoo xamante ni du lu nit di dindi. Mhm. nga ci doon xaar lu bari ci ginnaaw. non du xaar moo fi nekkoon loolu moo fi nekk ba jusqu'à présent ba lépp mais lu tax loolu yeggul foofu mooy musuma nekk ak ñoo xam ne xam nañ musique. est ce que xam nga ma la bëgg expliquer. comme staff bi ñu la wër. wala ñan ba mhm. ñu ma fekkal nii. ñi nga ma fekkal sax may nekkal di fanaan di yeewu di kii sax xamuñu musique ñi ngay gis soo leen gis ci musique xam nga nit ñi xamuñu musique bu weesoo papis bi nga xamante ne mi ngi liggéey ak Pape sax ay vidéo ñi ma fekkal xam nga nit ñi kenn xamu ci musique mhm. n'est-ce mhm. loolu mooy téye woon daf nday loolu kese. loolu kese maire yi woo nañ ma jooy. ci son boobu. xale góor jigéen woo na ma man sama yaay dafa dof ma koy nëbb sëy naa sax sama jëkkër mosul gis sama yaay bu demee ba gis ba ma ba tey jee moo xam ne sama yaay dafa dof à cause de yow. d'accord loolu question la après dinañ ci ñëw mais tey gis nañu dof euh, macha allah dafa juddu ci famille bi nga xamante ne mën nañu wax ñu ci bëri ay cadre lañu. ba ci ay maamam ñu nga xamante ni am na lu ñu nekk ci réew mi est-ce que tey yomboon na pour nga dugg ci way bi sa waajur yi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo la yor nangu woon nañ. waaw loolu day yomb parce que man sama papa artiste la demat day dessin day sculpté man sama ak sama turandoo dama judd fekk leen ñuy dessin tableau saabul dessin jël ay suuf def si defar ay jéembe sculpté ko conteneur bi taxaw ñu yóbbu temps eh, jëmbe mu ngi dox. Mm. man ci yooyu lañ ma ngénte suma papa day dessin day sculpté comme lal bi nga teg ko nii yii nii mu jël ko sculpté yi dessin yooyu mhm. yooyu la xam quoi xam wala yére batik wala affaire yooyu man sama papa artiste la moo tax ma naan maay doomu tiis bàyyi ba doon artiste mhm. sama papa tijaan la tudd quoi mhm. waaw mooy tiis ak artiste loolu dafa dama ko dafa nekk mën naa ne xaalis boobu sax la ma sama papa ngénte comme li Balla Gaye naan xaalisu mbër lañ ma ngénte mhm. sama papa du woykat du tëggkat mais artiste la dessinkat la sculptekat la sculpteur la day yett ay bant di dessin ay table sable di dessin nom li ngay romb Dakar gars yi di ko jaay ay yenn aar yi loolu lay liggéey ba nu mu màgget yi kon bi nga ñëwee pour wax ko wala mu jékki-jékki gis sa son amul ci benn problème. non man sama dafa jooyloo sama papa jooyloo sama jooyloo sama papa man son balaa muy yegg si sama papa fi ma ko doon wooyee la ko mère ki ko doon tëgg aka yaayam njëkk a ne aka est-ce dëgg la kii lu muy woy commencé jooy fekk son bi miskee guñ ko ma gis rongoon ci biir studio bi alem bu ñëwaat war a dugg ci son bi bu kaw lax di woy di jooy comme jigéen. ba ñu dagg loolu bàyyiwaat ba ñaari fan ba mu miinaat sax ñu andiwaat koy studio mu doo a dugalaat normal. d'accord euh, li ko jooyloo xam naa dinañ ci ñëw ci biir euh, émission bi euh, gis nañ ko ni jàng bi sorewul te lu ci bari boo woyee kenn mënu ko dindi kan moo lay bindal. ba ah, may woy ba ma njëkkee ñëw si huit mois dama def cinquante et amul lu si nit bind. rus naa dem studio naan la liiral ma. ngay liir ma koy wax day mel ni yow yaa ma ko jox yaa ma ko wax lu man damay ànd ak ku jàng nii mu bind nii ñu toog sax nga bind bu may dem studio bàyyi laa kaya bi bu ma ñëwaatee loolu ngay liiraat ci kaya bi lu ko gën a garaaw moo fay nekk wala loolu moo fay nekk kom ñi ma nekkal xam nañ quoi. Ah. ba ci démb suma yaay moo jóge fële benn booy dëkk na Gàmbi woo ma hey daf nday yaa mën a suppa fi ma toog suma yaay ñëw yor benn bool bu am ay kànj am jaxatu am yooyu mais si biir science loolu dañ ko def son foofu yóbbul ko Pape Diouf démb almadi defal ko ko son boo xamante ni wala Pape Diouf ak ñu nekk foofu yëpp xam nañ ni lii <laughs> lii dafa pare te nekkul lu ñu liggéey wala lu ñu ne ñu kii mm-hmm. ñuy dem si soirée Pape bi la maire bi ñëw ak jaxatoo te ñëpp xam ne borom kànja moo mën a suppa <laughs> yow xamoon ni yellu nag moo baax ci supp <laughs> kay hmm? ma ne Pape wala waale ku la bañ ñëpp laay supp ma ne ko sudul tey rek doon suba ba suba la daf nday man gisuma si booy ndoo yi ku ma si dàq musique wante man musuma woon gëm musique man dama ñëw ak sumay affaire dof nday dof nday dof nday bi may way léegi dem studio nii génnee ko ci studio bi dugal ko si net bi amul nañ ko jaarale fii amul nii naa sànni balancel nga sànni suba yee ma balaa may génne studio bi sax wala balaa may génn kawlax bi moo ko defee déggaat ko. déggaat ko d'accord est-ce que mos nga def euh, son yu xam ne après dalay lenn lii lekk nga ci lekk nga ci xaalis li ci doon xaar ci retour am nga ko ci bu baax a baax. ba ma wii way man maay si artiste sénégale koo xam ni danga dugg si musique même pas un an am kubu 4-4. ci kaw seen ñaata yaa ngi si journaliste. yàgg na yàggu. man nag ba may way sama premier concert bi ma def xaar yàlla lañ ma décoré laa jooyloo ñëpp feesal ko ba mu mel ni maar day taali kub yi jóge fu nekk ba kubu 4-4 wàcc fa Sénégal bi yëpp teg seen bët man maay ki ñaari ñaari meer yi xëccoo maire di leen wayloo maa wayloo Adama Faye raqu Marème Faye Sall mu naan tàccu leen dof ndey maa wayloo Moussa la maire Grand mu naan dof ndey lañu wax ñoom ñaar ñoo xëccoo ma jàpp seen loxo jubóole leen ko ci kaw seen jox leen micro ku nekk di way mu ngi si YouTube bi loolu musul am Bob Marley la moo ko fi defoon jubóole ñaari kii man maa ko fi def ñaar ñii xëccoo d'accord pour yor maire Grand ma raploo leen ci kaw seen awma problème musique Sénégal bëgg nañ ma mais joxuma cër man joxu joxuma woon musique cëram quoi damay toog nga woo ma fay ma mu neex ma ma jug dem ma am xaalis ma ne la ñëwuma kaay ma defal la clip wala kaay journaliste comme yow dama la bëgg vidéo wala caméra ma ne la eh, ban caméra sama téléphone mën na caméra soxlaw ma ku ma caméra mhm. Wally Seck invité ma ma ne la waaw maa ngi ñëw duma dem Amady Badiane kañ dem du ma dem Waly ne diw defaral daf ndey clip du fa dem xam nga la. Mhm. gëmu ma woon affaire bi quoi. ne instant bi pare nga. gis naa lu nekk ci musique ku nekk mais musuma woon gëmuma ko woon damay way sànni ko si net bi après dellu naa si dans l'avant bi nit yaa ngi xam ci son bi nit yaa ngi woote pour bëgg jot ndey daf ndey nit yaa ngi bëgg lu nekk ci daf ndey mu ngi ci dans l'avant bi wala sax mu dénkaane ni téléphone am dem yoonam maa ngi doog a taxaw dëggal sama bopp ni booy dama taxawoon ne bu ma wooyee booy yëpp xam ni ñëpp dégg suma tur maa ko fi waxoon àdduna ñëpp dégg suma tur maa ne waat dama ñëwaat woy pour gagner li ma moom ci misik kon daal pare nga nekk nii pare pare woo woon da duggoon mais pare woon actuellement nii yaa ngi doog pare maa ngi doog pare pour jël li ma moom gañe ko ci misik comme wali Seck comme Pape Diouf comme n'importe ku fi nekk fii nii comme Youssou Ndour comme ku fi nekk di tedd ci misik ci wax way wax comme da ngay wax mari di reetaan gars yi di fecc ngay di foo ngay tedd asuma kuy tee di man damay xam loo ay nit de ok mu ngi noonu mu nekk lu am solo <laughs> Malick émission bi daal dara neex de ayca bi ngi noonu mais euh, toogoon nañu lu yàgg comme ni nga ko waxee yaa ko wax léegi euh, sa biir wax euh, Dof ndey bu defee concert gars yëpp ñëw gars yi di ko déglu mais ñu jékki-jékki gis absence bu yàgg déggatuñu Dof Ndeye xamuñu ci lu mu nekk lan moo waraloon toogaay boobu. mooy li ma la wax léegi dama ñëw def biir wi ñëpp xam Dof Ndeye ñëpp dégg Dof Ndeye Dof Ndeye joxul cër musique bi. fi gars yi di taxaw pour caméra bi wane leen pour ñu feeñ fa Dof Ndeye day def du fa taxaw. Mhm. micro bi fi ñu koy joxoñee pour Dof Ndeye taxaw fa Dof da koy bañ. yaa ngi may dégg. Mhm. moo waral ma nëbbu sama bopp. yow da yow yow dégguloo Dof Ndeye. ok. sa waa kër dégguñ Dof Ndeye. non ñëpp dégg nañ ko mais après dañ gis nañ say son mais dañ jékki-jékki. gis mooy li la wax léegi. nelaw la musuma ko gëm dama ñëw def bir wi ñëpp ne dof ne dof ne dof ne dof ma tur tourné jaar na le gëmuma musique nekk si li ma nekk ma feeñ nangu ma def clip ma def caméra nanguwuma dara def fi papa gërëm naa la def fi clip live bandi na doy na Euh, mooy comme ni nga ko waxee rek sànq wax nga ko sa biir wax ñëw nga euh, def nga def nga ay son mais gars yëpp ñu ngi lay déglu comme ni ñu war a dégloo et comme ni nga ko waxee sànq nga jooyloo mag yi jooyloo xale jooyloo ñu bari mais après ñu jékki-jékki gisatuñu gisatuñu Dof Ndeye mooy li wax dama ñëw way def clip ñëpp ne Dof Ndeye Dof Ndeye Dof Ndeye Dof Ndeye tàq àdduna xam ko fu ne ñu koy woo concert boo ko nee maa fi andi woon rapport bii sax mu ne la ñaata nga ko fay nga ne ko temps mu ne la dubleel ma ko man duma rapport boobu man dama toll foofu. du ko def jàkkaarloog askan bi. yaa ngi may dégg. Mhm. dama ne la man maa jékki-jékki mu mel ni dañ ma ni micro wala caméra wala way neexutuma woon quoi. est-ce que yaakaaroon dañ dañ dañ la jékki woon ku mënul faj suma yaay pour man mënuloo ma jekkutaal man pour man ma toppoon dans la vent bi topp ngelaw lii tey ma dem Gambie topp nekk fa huit mois wala six mois xam nga topp sa neex nun tey nga ñëwaat dem Jurbel nekk sa kër jabar benn six mois wala un an si dëkk bi foofu gëj Dakar waa waa Dakar namm la xam nga li may waxee <laughs> yooyu noonu la muy Jurbel Gambie mm. ah, sali bi ma logé Mhm. nga yor sa oto taal dem fii yoraat sa oto taal dem fële concert farataloo ko clip farataloo ko kaay ma defal la clip nga ne ko waaye ban clip télé woo nga ne ko ñëwuma de man ay télé rajo aw temps DJ woo rajo nga ne ko waaye ban rajo est que yaa ngi may dégg mhm. loolu moom la def ndey la la wax ne la moom loolu la foowee loolu la respecté woon loolu la manqué parce que amul staff moom kese la ak ay xaritam yoo xam ne xamuñu way fu ñu jàdd ñëpp naaw dof nday dof nday caméra yi jolli nii naa ñu jubalaat nekk suñu bopp. d'accord euh, est-ce que am nga label boo xamante ni actuellement yaa ngi liggéey ak moom. non ñu ko bëgg bari nañ ba ci maa ngi nuyu Matar suba teel rek démb rek voilà ñu ngi téye suma loxo xëcc ma ba ci kaw seenu Pape Diouf bi. te am nay comme yi nga may laaj yu bari yu ma dee Wally Seck taxaw na moom fii vidéo ne daf nday studio baa ngi nii heure boo bëggee Papis Ndiaye na la defal son heure boo bëggee caméra Papis daf nday defal ko caméra laajal Papis ndax mës naa fa ñëw na ko vidéo wala son Wally ba ma joxee léppam studio benn yoon laa fa def benn son ca laa fa gëjaat ba kañ ba mu fa jógee nii maa ngi fay bañ ne daju yaayam bi des na laa fa jóge pour jaale yaayam maa ngi jaale waale yaayam sax si laa demaale si job Papis Ndiaye. comme si que man booy kuy rap fii man maa la dàq rap man soo tegee sa yaay ma jooyloo ko ci musique su dee da ngeen bëgg a tëb dal rek rakkaaju rek su ma si ñëwee ak waykat yi ak rappeurs yi rappeurs yi lem liñ naan metteek xaw ma dof soow la bu ma nàmpoon dañ ko bëgg sax dindi teggi teg fële ma dellusiwaat wane lu bees. d'accord euh, tey booy déglu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk du ma tudd mais am na rappeurs yu mag am na rappeurs yu ndaw yu nga xamante ne gars yi ñu ngi leen commencé di di di di gis du ñu la laaj ci mbalax dañ lay laaj ci euh, li nga nekk ban ban ban yëg-yëg ngay am ak naka nga gisee euh, rab bi est-ce que gis nga ne gars yi ñu ngi koy doxal lan moo la ci naqari. rab bi dara nakarewu ma si lenn moo si nakari rek mooy da ngay gis koo xam ni huit heures lay tëdd wala dix heures si guddi bëgg la nettali la xew quatre heures du <laughs> yaa ngi dégg gis koo xamante ni waa këram xamee wuñ ko lu dul jël ko yóbbu ko école indiwaat eh. ko yóbbu ko école andi ko ba mu dem ba am 15 ans commencé rab benn 5 ans bëgg nettali ci biir rab bi loo xamante ni da nga naan ëw kii garaaw na kii ñàng na fekk yàlla xam na ni mën na saaga ndey mën na tuur ay deret ci biir son bi mën na wax wax bu ñaaw ci biir son bi mais yàlla xam na ni bu gee jotoon nii nga ne ko kaay ma yónni la fële mu ne la ñemewu ma jaar foofu mais wax bu ñaaw ñoom dañ koy mën. kon daal da ngay gis ne dañuy bandi bandi la. waaw dafa bari nag si rab bi quoi. Mm-hmm. ku si ñëw rek da bëgg a wax benn wax boo xam ni sa papa sax day tiit wala sa yaay mais xam ne ni lii sama doom lii newul ci moom. Mm-hmm. wax bi ñàng bi wala ni ni ko gars yi kiyee nii sax newul ci ñoom maanaam booy si bari li ñuy xeeñ diwowuñ ko li ma la bëgg wax rab bi maa ko moom man la suma ndey di daanu rab suma téye maag maag booy kenn du damay raap tëdd di raap yeewu di raap jóg sax dox di raap nga ñëw ma lalal la darab nga tawar ma jox la sa garab maag booy kenn du rap su ma ndey day daanu rap dama nàmp ay soowu rap ban rappeur la fi ndeyam di daanu rap boo ma naree dàkk rap dàkk rap sa ndey foog muy daanu rap nel daanu rap daf ndey gi day daanu rap booy ba ñuy jàng rap fekk na ndey gi di daanu rap maa fi dàkk rap nangu ngeen. maa rab un an am kubu 4-4 amul rappeur bu ko fi def pendant un an nii rap mois nii ñu ne la yaa ngi dawal 4-4 ban rappeur moo ko fi def Sénégal mën nga am sax ay million mais ñaataat at nga xoslu man rappeur moo fi rab benn 2 mois ñu naan laal kase 8 mois. ban rappeur moo fi rap sa clip génnagul nga feeñ TFM Pape Cheikh Diallo ba may wanee boobu amaguma clip. son lekk nga def. waaw teppi tali bi. ci la paa bi ñëw di jooy amet ay kii ni mu tuddati naan kii kii yore solo yi naan suma gis la lii sama première émission dama jooyloo ñoom Pape Cheikh Diallo jooyloo àdduna te clip génnagul clip bi ñëwaat ma wane suma yaay wane suma papa mu doon naturel dëkk bi yëpp jooy sénégalais dafa am yërmande mhm. te man waxantuwuma lu nekkul quoi dama wax li fi nekk balaa nga ma koy waxal naan ma doomu dof bi ma teel a wax suma papa te suma yaay ji dof bi di ko toppatoo. d'accord loolu question la après dinañ si ñëw euh, comme ni comme ni nga ko waxee léegi dugg nga ci rap euh, euh, def benn def benn xaw ma ñaar son ni nga ko waxee am ci 4-4 laaj ci ay salaires yu bari est-ce que yaa ngi def tournée extérieure yaa ngi yaa yaa def ay concert foofu. moo loolu mooy li nga xamante ni staff bi la Dof nday manqué wan man soldier Dof nday kese. Assane Sall xamul musique Moussa xamul musique. mais yow tam nooy jëlee staff bu xam ne kenn xamul musique tamit. kenn mais kenn kenn kenn ci ñoom xamu ci musique kenn ci ñoom mënu la wax son bi mën naa maa ko sànni fële la mën naa ko dugal si net bi wala son bi mën naa ko dugal Instagram wala mën naa ko dugal fii yàlla mooy boole nag. Mhm. mënu ma leen fi bàyyi dem jëli ñeneen mais time bi may wax ak yow. dañuy xaar toog si biir apartement bi ma ànd ak ñeneen <laughs> dem doxi leneen su ma ñëwaatee ak ñoom ñu fanaan dañuy xaar. mais maa kii du xaar. non ñoom ñëpp dañuy xaar. <laughs> ñii di sama xarit yi yëpp nga fiy gis nii dañuy euh. xaar parce que dañu war a xaar musique bi lu mu laaj nekkul ci ñoom ay amateur lañu quoi ay seetaankat la ñu war a doon daf nday pare ñëwaat ñu nekk ak ñoom bu amee ay millions ñu noos ko ak ñoom su amee ay nag ñu lekk ko ak ñoom bu amee jigéen yi toggal ko góor yi boo waree sol. sol ko ak ay équipe ak ay góor ak lekk ak ñoom. kóllëre bi daal day si dellusiwaat. mais nekkatul mag gars yi ñoo war a ànd jagat jagar yi jël ñaari sept place jël ñett sept place dem Fuuta dem Ndar dem saa tool Matam. Ndofane jàkkaarloo xam nga yooyu amatul quoi. <laughs> kon na ngeen ñu xaar ma quoi <laughs> que dañ ma sas. xam nga. Mm-hmm. Abdou Aziz général ay Marcel Diagne xam nga ay maire Khady Gaye Abdou Khadir. paa bi nekk rajo Amérique nu mu tuddati sax rajo suñu Afrique per laaj xam nga ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne suma leen di lim juum. moo tax daal da nga pare pour liggéey li jóob ak ñu ne koo leen fekk eh, sa artiste bi sa artiste bi te ñoom seen artiste bi moo mën booy mais seen artiste bi moom lu ko jot loolu nag lañuy ñuy dënd quoi dafa amoon luy ñuul ci biir soow li hmm. loolu laa sempi moo waral ma ne sama xarit yi da ngeen may xaar. ci appartement bi. ma dem ñëw. ma dem ñëw. <laughs> kon yéen da ngeen di xaar. dama pare sama aara ma tax a jóg. Mhm. ci jamono ji ma boole ci fulla gu bari nag jàngi pour jàngale jàngaat pour may xamale ndax sama aar musique moom ma tax a jóg de. moo la tax a jóg d' accord. gars dañuy euh, xaar. parce que parce que dama dama dama dama dama dégg sa benn wax bu xam ne euh, pare woon nga pour dem euh, benn concert fi nga xamante ni moo di Espagne. Euh, ba nga ñëw ba signé kayit yi ba pare lan moo tax boobu mujjoo dem. waaw parce que dem naa waa ambassade signé nañu lépp consulat dem ambassade def lépp te su lu ñu dem ma gestu suma ginnaaw gis sa genre bi gis ay jaaykatu ñebe gis ay defarkatu <laughs> gis ay commerçant gis ay sista yoo xamante ne ay coiffure ay bopp lañu salon la ñu yor. Mhm. ñu bëgguma ma boole ak ñoom ne ñii ñooy orchestre Dof Nday bi quinze personnes lañ léegi comme ñëpp signé nañu na ma signeel ma leen non man duma ma signé ñii xaw ma leen nga ni ñii orchestre bi ñoo nekk nii quatorze personnes da nga leen jaay pour da nga ma siy jox trois non quatre ngeen jël dix yi ñu ne ma non ñun ñoo ko def ñoo ñoo lijjanti papier yi lépp Europe gars yi ne ma signal ma damm big bi ambassade kiñ doon kiñ jiitaloon noonu naan mooy suñu ménagère Moussa su ko bëtu oom yi da ñu koy xañ ma a ko yow sa yuur dafa yàqu. ko. da ñuy xañ dem Europe bi pour nga dem Europe yow ma ne ko yow sa yuur dafa yàqu <laughs> jour boobu noonu la kittewaat tamit tamit sax si la waaw la ñu mujjee kii parce que voilà. di ngeen di ngeen jaaree tàggali ko parce que mënoo ma yor ñu lay. ñu use sa mind ba war ma mën a jëriñoo jaay quatorze personnes nañ def orchestre daf ndey ak équipe te boobu yow kese yaa waroon dem ci staff bi. man kese maa war a dem ñu andil ma quatorze personnes ñoom ñëpp ci sama tur parce que sans yow xam xaw ma na xam xam nga li ñu fa waroon yóbbu xaw ma parce que am na ay centre yi fa nekk dañu war a yedd booy dañ leen war a tegal yëfu bandi bàyyi leen ko nangam nangam. war nañu dem centre yi nga xam ne ay dof lañu foofu tamit def fay affaire xam nga kon loolu projet boobu yëpp ci man lañ ko jëlee. Mhm. mais comme jànguma sama yuri pour ñoom dafa yàqu mën nañ ma utiliser ma ne bañ demee ba si cappaandaw gi. desul lu dul daf nday signal pour ñu dem c'est le seul artiste bu damm big ambassade ne deew ma ñoom ñoo ma ko wax de ñu ne ma fii nit mosu fi damm big. mais ñooñu ñëpp dem nañ. ñoom ñëpp après waaw man gedd naa daal dama fa bég ñibbisi naa après non non daf nii naa ba jusqu'à présent suma passeport sax mi ngi fa naroon naa leen def plainte sax parce que voilà mais rus naa yóbbu nit kaso parce que ki ñu damay tëb foofu sax mën naa ni man maay seul sénégalais bi nekk kaso ñu génnee ko si biir kaso bi mënatu ko yóbbu ko ambassade mu signé consulat de France ñu mënatawaat ko andiwaat ko si biir kaso bi ñett fan ma war a ñibbiwaat ñeenteel fan ma war a demaat Europe mu doon affaire boo xamante ni sax. kon bi ngay war a dem noonu boobu yaa ngi ci biir kaso bi. waaw d'accord boobu suma yaay lañ saaga ma suma yaay lañ doon coowal daal ma dugg ci affaire boobu moom fa yóbbu. Mhm. suma yaay suma yaay li coon naan boo bëggee jot sama jikko tuddal suma yaay loolu moom fa yóbbu. d'accord euh, dinañ ñëw léegi sa diggante ak sa yaay parce que gis nañu sargal yi nga ko def ak yenn jaar-jaar yi bon euh, euh, sama jëkkër da lay bégee day déglu say son yu bari tey bi ma ne ko Dof Ndeye laa dalal am na mbégte lool parce que moom wax dëgg yàlla dalay dalay da lay lu baree bari. ñu du ñëw ci li nga xamante ni mooy son bi nga xam ne moom nga defal sa papa parce que tey mun nañu wax ne artistes yu bari dinañu def son woy seen yaay ci yaay boog la ñu gën a xam ñuy delloo njukkal. mais daf nday tey ñëw woy papaam delloo ko njukkal ba pare son bi génn euh, def bëm retour boobu moom xam naa ne bon est-ce que yaa ngi ko doon xaar d'abord lan moo waral nga nga nga nga nga delloo ko njukkal woy ko woy bu rëy boobu.